ñi ngee nuyu di ndokkeel Abdoulaye ci bisu gàmmu gi ndax kat ndax kat bokkul ci ngor bokkul ci ngor. bokkul ci diine bokkul ci reconnaissance Abdoulaye Wade bis bi mu fi daan ñëw. wala muy dem kër Serigne Abdoul Aziz Al Amine dem ca kër Serigne Abdoul Aziz di fa añee. ànd ak premier ministre am ak i soppeem bis bi ñëw ñu mel na xamuñu ñu xam watt man day Serigne Maodo dama koy tudd monsieur le président Wade foo nekk foo nekk nuyoo ak mi ngi noonu ci sa loxo jógee ci kilifa yi jaar ci seen làmmiñu rak seen taalube macha allah macha allah. ñun daal fàttewuñ la. sëriñ bi daal ne ko fàttewuñ la. ñu ne ko ñun daal ma soo ñu fàtte. ba jógee fii ba jógee fii. dem ci xalifa bu tedd bii tey. dem ci kër maamam. kër gu mag.